asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk fi daje maa ngi leen di nuyu bu baax te sant kàddu yoo xam ne maa ngi ko bëgg ngir ndigal yàlla dogal ñu fi daje muy sëñ Abdoulaat jóge ci daayira Muxaddamatul Xidma kàddu yi nag li ko yokk mooy bis bu mag bii nga xam ne mu ngi ñëw di màggalu Tuuba te li nga xam ne moom la sëñ bi wax ñëpp dëgg nañ ko li nga xam ne moom la ci defit ñëpp gis nañ ko sëñ Muntaxa di koo xam ne lu mu digle njariñ la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 def ni ko sëñ bi bëggee rek te xam ne suñu njëriñ dong la sëñ bi dafa bëgg fi ñëw doo yóbbaale lor njëriñ yi nga yóbbu boo ñëwee bay dem te yóbbu njëriñ nag mooy def niñ ko diglee dañ ko doxalee noonu loolu mu ngi jëm ci màggal gi ndax mbooloo mi daje gi ñu fi daje day bari lool li nga xam ne moo jëm ci muxadimatul xidma nag ñoom ñi nga xam ne ñoo yor jumaa ji am na ñaari wax yu ma fi yu ma ci mës a wax yoo xam ne danaa ko danaa ko ci leeral mas sama wax ne jumaa ji dey ay yoon daf ko wër te yoon yi oto ciy jaar waaye oto bu fay jaar sax ku fay jaar ak sa oto sax war nga boo tollook jumaa ji teggi sa tànk màggale ko kii tëdd ci jumaa ji yoo xam ne kii boo duggee oto nag war nga teggi sa tànk mm-hmm. defe naa waxuñu leneen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 yàlla rek a tax mu woote ko ñu di ci séentu nag ndimbal ci ki tax mu di ko def xam nañ ne am nañ yaakaar ne sëñ bi yàlla mu tax mu di ko def moo yor moo moom dogal yëpp kon nag sëñ Tuubaa baax gi mu baax ak woote gi mu wooteel bis bi ngir yàlla séentu nañ ne yàlla mi yor dogal yi dogal yu rafet rek la ñu ciy defal incha allah kon nag noo ngi ñaanal sëñ taxa mu yàgg fi te mu ànd ak wér ba li mu bëgg a liggéeyal sëñ Tuubaa lépp mu liggéey ko waaye wax ne sëñ Muntaxa daal li nu war ci moom mun toogee ba yàgg nu dem siyaare ji ko jébbluwaat yeesluwaat den lu toogi fan jóge woon te lu mu digal nu nekk ca loolu day ku ko def murit piir nga waaw kon nag gannaaw danoo bëgg a doon murit piir nañ sax ci ndigalam rek lu mu sant rek nañ nekk ca loola noo leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal sëñ bi bég nañ ci ñëw gi sëñ Fallou bég nañ ci ñëw gi di sant yàlla itam nag ci bi ngeen nu boolee ci liggéey bi ngeen di liggéeyal Sëñ Tuubaa min maliki fika isaadan bila awadi ذا توبة فيك أيضا ماضيا أبدا بالذكر والشكر والقرآن للأحد إليه قد تبت في شعبان عن رجب مجددا فيك فاشهد لي كدتي لاشهد بأخذ كتاب الله فيك هنا إلى ارتحالي يوم السبت والأحد واشهد بحبك حب الذات يا أملي واشهد بحبك حبا ذات يا أملي وكن حبيبي يوم الهول والكمد إني أحبك يا شهر الصيام بلا غش فأهلا وترحيبا بلا عدد إني أحبك يا شهر الصيام بلا غش فأهلا وترحيبا بلا عدد